الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي hadaana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadaana allah wa nusalli wa nusallimu ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa jacala diinahu wa shari'atahu xaalidayni hudan linnaasi ala marril quruun mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias fu ngeen mën a nekk si biir réew mi ak si bitim réew comme d'habitude rek ñu wax leen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ziyaar ci yowmul jumaa bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàll nañu ko nangul nangul ko njaboot gi nangul ko waajur yi nangul ko borom kër yi waaye tamit di ñaan réew mii di Sénégal yàlla nañu fi yàlla sottil jàmm ju yaatu yaatu xam naa tey moom xol yépp neexuñu ndax li nga xam ne wàcc na sunu kaw muy accident boobu nga xam ne moo xew de bërki démb si guddi ñuy jaale mbokk yooyu yépp nga xam ne ñoo wàññeeku ci hélicoptère boobu daanu di ñaanal itam yal na leen yàlla xare àjjana waaye tamit di ñaan ñi nga xam ne ñoo ci muccandi yàlla may leen ñu wér ak jàmm yàlla defal leen shifaan laa yuxaadiru saqaman wala alaman ndax yàlla mën na ko euh, di jaale itam Adja Sagar Sall waajuram boobu génn àdduna fële ci Tamba Adja bu Alaaji Moustapha Guèye moom tamit ñu ngi koy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci prison yi di leen wax yàlla na leen yàlla génneeg jàmm rawatina prison wu sama bopp muy euh, waa camp pénal suñu njaboot googu fa nekk yàlla na leen yàlla génne jàmm ak salaam di nuyu mbokki jullit yépp nag di jël nuyoo yi rek teg ko niñ ko baaxoo def suñu waajur yu góor yi xalif généraux yi rawatina nag tey sama xalifa bopp di Amat Tidiane Ba El Hadj Thierno Amat Tidiane Ba fële Madina Gounass nga xam ne falaa jóge rek démb démb euh, ak njabootam Thierno Abdou Aziz Ba ca Daaka ba gis ngeen tey sax ni ma weexee ngeen xam ne daakaa ba laa jóge xam nga daakaa ba moom boo fa jógee macha allah taala da ngay indaale leeru tariqa bi macha allah cheikh day ànd ak yow kon nag ñuy wax ne mboolem ñi nga xam ne ñu ngi dem itam ci tëjte bi ñu daw ndànk rek egg ak jàmm euh, ñu moytu itam safara yi bu baax a baax a baax bàyyi si xel ñuy ñaanal njaboot gi yëpp rawatina nag sama tànt sama xarit tante euh, Aminata Haydara euh, soxna Aminata Haydara maa ngi lay ziar bu baax ngan ngi neex na di nuyu waa kër ga yëpp soxna yu ma as baro sama ñaari seex yi Mouhamadul Kabir ak kenn Baro Ba di nuyu seen soxna ak seen njaboot yëpp femme Binta bàyyuma kenn ñoom soxna Zeynabu euh, famille bi yëpp tey temps bi moo dem bu baax waaye li ñu gënoon a bëgg bëgg nañ ko gën a yaatal waaye tamit di nuyu di gërëm ñi nga xam ne ñooy waa euh, Weli Ngara Wélingara Adja Sala Diop maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp xam naa ci yeneen waxtaan dinañ gën a dellu siwaat ci conférence Wélingara boobu nga xam ne mooy mun naa tudd ne mooy meilleure conférence ci année bi ndax ñoom seen conférence dañoo boole yar ak teey ak déglu seeni marine ñoom Adja Kiné Ndiaye ñoom euh, Malick Baan Alaaji Malick Baan ak njabootam ñoom su Sumunu macha allah taala ñu ñëpp ñu leen di ziar waa Kolda yi bàyyiwuñu kenn sama yaay booy nag sama njaatige it ma koy nuyu bu baax kuy conférence daal booye boo rek nga dem ba weli ngarab fa la conférence tàmbalee fa la yem ñu ngi leen di ziyaar bu baax xam ngeen ne rek ñoo ngi nekk ba tey ci mois de mars bi di ci nuyu suñu yaay yi di leen ci sargal Adja Kumba Waly Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar mu jottali ñu nuyoo waa xadara bi yëpp ak Adja Amin Ndoy fële ca Mbuur Faat abi bàyyiwuñu kenn dañu nekk si weer woo xam ne dañu waxoon ne 8 mars la 8 mars bi nag gis ngeen niñ ko feete woon am nañu ko féete ci ay thèmes yu fasantikoo nan la ñuy fexe ba jàppale waa kaw gi nan la ñuy fexe ba joxe financement yi waaye nan la ñuy fexe itam ba jële fii itam mitital jigéen violence faite aux femmes nga xam ne waa Sédima Adja Ndeela Ngom Babacar ñoom it moom la ñu organisé woon ñoom bu maa ngi leen di nuyu bu baax waa Sédima ak njaboot ga yëpp sën fàttewuma la borom fatiha bu neex bi ku bëggati ku la jàngal fatiha rek woowal sën macha allah taala di nuyu tamit waa LONASE ñoom euh, madame imam Aminata Ndiaye euh, macha allah taala ak waa ñi ñu bokkal ñoom soxna Zeynab la présidente di leen wax ne mars bi rawatina nag waa alaaji daam Diop mi nga xam ne moom dafa ne moom li muy sagale jigéen ñi ci 8 mars bi rek moom may leen ay terrain ñu def ko seen macha allahu taala euh, euh, siège social waaye te mu yëkkati jaari terrain jox ma ko ne ma def ko daara kon alaaji daam Jóob jëf yow ku teral jigéen nga waaye nag ku teral sa waajur teral sa soxna jigéen jóg sa da danga koy teral kon alaaji daam Jóob barñe terrain yooyu yàlla nañ dund ba ñëpp jàpp si nag ñu daal di koy tabax xam naa ne ñoom maam awa siyeg ñoom maam awa xumma waa groupement asalaam ci aju màkk gi dinañ ci taxaw bu baax euh, ñuy wax itam di fàttali rek ne xam naa temps bi tey moom bu dul 10 minutes di 15 minutes ndax dem na ba jeex euh, waaye ñuy wax ne rek bu leen fàtte aji màkk gi ndax euh, fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin bureau yu ubbi nañ ko nit ñi nga xam ne dañoo war a dem màkkaren ñu gaawantu jublu ci ndax euh, euh, visite médical bi commencé na fee ca Liberté 6 te suñu moytuwulee trente avril lañ ko war a tëj segam neex na yàlla ci li nga xam ne moom la naar yi wax ñu góor góorgóorlu ci ndax bu dul loolu suñu moytuwulee ah mun nañoo am mbetteel ñu ne jeex na tëj nañu bureau bi fekk nit ñu bëri ñu bëggoon a dem mënuñoo dem ba tax na sax suba ci samedi ji incha allah taala à partir de 9h képp ku ñëw institut islamique dinañ la wax leeralal la yëpp nu muy demee at ji nu muy demee yan moo ci ay coppeeku yu bees ak nan lañ koy defee ànd ak groupe Renefes ak seen président colonel euh, jong su ko defee rek ñu xam ne weeru jigéen ñi ci la ñu nekk ba léegi ñu teral jigéen ñi képp koo xam ne yàlla may na la waajur nga xam ne sa waajur bi ci weer wi war nga ko teral bu ñu ko yemale rek ci wii mars bi waaye nañu continuer ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf ñu dénkoon dafa doon dénkaani jigéen ñi di dénkaani jigéen ñi ba nga xam ne li mu waxoon indi rek innama nisaau shaqaiqu rijal jigéen ñi ñooy xaaju góor ñi ñooy ŋàdd góor ñi gis nga doomu guro boo ko dajalee nii boo ko ubbee da nga koy ŋàdd waaye soo ko tëjee nii macha allah taala ci ngay soog am ñum comme jigéen ñi ak góor ñi genn wàll la ak genn wàll ñu ànd war a ànd ànd bu rafet donte ne sax du am na lu loo xam ne mënul ñàkk parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon na jax-jaxe ba nga xam ne waaye doon na dénk toujours jigéen ñi ak ndaw ñi rawatina li xew ci àdduna bi boo seetaanee da ngay tiit xale yi ñemeetu ñoo jàngi gis ngeen débat yi ni mu demee macha allah taala xale yu ndaw yi liir yi barki démb fukki yenn yee nga xam ne ci internet bi lañ ko génne ci ngaay ne ñu ngi foofu xaw ma nu mu demee ku sa liir réer yooyu nekk ay mbir yoo xam ne musul am Sénégal te ay la yéwén neexul ba neexul waaye li koy waral yépp wax nañu ne lu si ëpp mooy ah wutum alalu àdduna bi nga xam ne ci la ñu nekk te xamuñu ne àdduna bi dafay jeex te xamoo li yàlla waxoon rek nit ki xamul ban suuf lay génne àdduna xam nga ne ñee nga xam ne ca Fatick dëkkuñu fa seen hélicoptère naaw ba ci màng yi foofu daanu fa macha allah taala ñooñu yàlla yebal malaayika bi mu jël seen bakkan foofu xalaatu wala ta wala euh, nu ko xawma aaya ba ti amul benn bakkan boo xam ne xam na wala ta tadri nafsun bi ay ardin tamuutu kenn xamul fan ngay génne àdduna kon nit ki fu mu toll rek war naa bàyyi xel boroomam war nañoo gën a góorgóorlu sam ci suñu diine lislaam rawatina ñun jigéen ñi rawatina gàttu fan bi am léegi rawatina accident yi maar day taali chaque jour soo xëyee deewu mbetteel yoo xam ne deewu ndaw xale yi ñuy sàcc xam nga ne yow boo juree sa doom nga xam ne ëmb nga ko juróom-ñeenti weer en tant que yaay nga gane àdduna xool ko di jóg di daanoog moom ba mu am ñetti at wala juróomi at juróom-ñaari at ñu xëy na ko coppet yóbbu ñu xëy suba delloo si la indi la bopp bu ñu dagg wala loxo bu ñu dagg wala tànk nga tiim niiw boobu di ko suul te yonante bi waxuma sax nit waaye niiw si boppam sax kenn amul droit gaañ ko fenn asamaan ak nit kuy dund kon yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne Sénégal xamuñu ko woon Sénégal li ñu li ñu xamoon yàlla li mu ñu santoon moom lañu xamoon yàlla borom bi subhaanahu wa di wax naan wa min ayaati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda wa rahma loolu lañu xamoon Sénégal li ñu xamoon mooy cofeel Sénégal li ñu xamoon mooy yërmande Sénégal li ñu xamoon mooy dalalante ku nekk di dalal sa moroom ku nekk respecté sa moroom ku nekk jox cër sa moroom ku nekk bëgg sa moroom loolu lañu xamoon Sénégal waaye ñuy dem di dem di dem yàlla di ñu wax ne li di di àdduna yépp ay bagages la mais bagage bi ci gën waxul ni alal la addunya kulluha mataaun wa xayru mataa'iha azawja assaaliha jigéen ju baax jigéen ju toog di yar ay njabootam jigéen guy sàmm waaye comme niñ koy waxee bu dee góor ñi bu ñu xëyee wuti jigéen ñi wuti xale yi ñu bàyyi leen ci kër gi ñoom dong ñu daal di leen di jël di leen violer di leen mitital di leen di leen duma mitital rek weesuwul nga jur sa doom doo ko toppatoo doo ko dundal doo ko wodd xamoo ndax mu ngi jàng xamoo ndax mu mu fayu léeg-léeg nga dajale ñëpp jël juróom benn doom fukki doom yóbbu ca oustaz ndongo ca sëriñu daara ba ne ko yaxam laa la laaj ah loolu tamit kenn xamul nan la tudd kooku war cee dajale yow ñett yi ëpp na la ñaar yi ëpp na la juróom yi ëpp na la nga jël nag daw sa responsabilité jël ñëpp ñoox ko ci kenn nit wala nga tudde nit may ko doom wala nga jël sa dëkkandoo wala sax xamul nga jël sa doom sa njaboot jox ko xale yi ñu def leen ay esclave ñii ñu leen di jaayloo ñii ñu leen di tëddi xale yi nekk si mbedd yi di jaay ay ndox xale dëkkul si mbedd xale yi nekk si mbedd yi di yalwaan xale yoo xam ne des fois bu ñuy yalwaan marchepied oto bi sax duñ ko duñ ko jot sa yaram dafay daw ñu jiñ ko lislaam mais xam ngeen ne loolu du l'islam te buñ ci buggee jóg pour lijjanti ko pour delloo xale yi ci kër gi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñoo ci dund dëkkuñu fa seeni jabar dëkku fa seeni doom dëkku fa daara yu bari soo demee ci daara alquran yi nga xam ne ñoo nekk yu baax soo demee da ngay gis ne ñu ngi leen dugal si ay kër denc leen waaye ñi nga xam ne dañuy jóge ci sous raison bi wala fii ci dëkk dëkkaan yi euh, conjoncture bi jàpp leen ñu ñëw fii ci dëkku taax yi xoola bërki démb bi may romb Tamba maa ngi gis ay xale yoo xam ne lu mat juróomi xale man bala ma si sarax kenn dama lay tariloo alquran boo taree am na tari 100 francs am na 500 am na 1000 francs mais il foog nga tari pour ma jox la dara mais am na si ay xale yu ci raxabaaru biñ la laajee dama leen laaj ma ne leen yéen tari leen ñu ne ah ñun koy sarax ñu rek waaye waaye ñun euh, euh, jànguñu ñoom sax pël lañ doon làkk mi ne mi neen kay min jàngaani mi neen min ardoo tan mi leen yeloo min ngala hay dara ko daga léegi amen min nawat suñu kër lañ koy yóbbu ñun jànguñu xoolal ma loolu xale yooyu nga xam ne seen waajur yi anañu ana seen papa yi leen xam ne yàlla bi mu waxee ne wala tul wala wala wala taqtulu awlaadukum xashyata imlaaqin bu leen rey seen doom yi ngir ragal ñàkk wala taqtulu awlaadukum min imlaaqin ndax bu njëkk ba nit ñi ñoom bu ñu xamee ne doom yi bu ñu leen juree dañ leen di dañ dañ ci dañ leen di rey yàlla tere leen ko ñu arrêté ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ak suul yi ñu doon suul jigéen ñeeg ñu metti noonu mais yow tey suñ la nee pladigal nga lànk ne doo planning parce que planning dafa xaraam loolu mooy rey nit indi ko diaboliser ko yàq ko yow bu ko defee yow nga nekk ak sa soxna yow daal li nga sëq ak moom mooy tëdd bànneexu soo paree rek wekki sa wekki sa caaya daal di dem sa yoon feneen fu mu neexati rek nga nga nga sumiwaat fa caaya be ah wala nga sumi fa sa kilote wala nga sumi fa sa pantalon loolu du lislaam loolu du diine kon njaboot gi yàlla daf ne kullukum yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ne kullukum raain wa kullu raain masulun an raiyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te billahi bu yowmal qiyaamate dinañ leen laaj nan ngeen sàmme woon ndax jofal si ngeen bu leen defee ne doom yi yàlla dafa wax ne doom yi innama amwaalukum wa awlaadukum fitna doom yombul mais jur doom rek demi sonné ku fase jabar fase waale doom yi ba su mu nekk ma wax ko loolu daf ma metti parce que yow boo fasee nit ki war nga dundal doom ji te lislaam dafa ne même nàmpal bi nga xam ne ndaw si mu ngi la koy nàmpalal sa doom da nga ko war fay bu dee da da ngeen a tàggoo rawatina nag ki nga xam ne yow tàggoowu leen mais yow sa problème mooy yow daal loo am rek boo fayee courant fay ndox fay téléphone defe nga ne pare nga xale yi seen jàng sa yoon nekku si xale yi seen fourniture sa yoon nekku si xale yi seen santé seen yoon nekku si jigéen ñi daw nañoo dawa dawa dawa daw ba nuróotuñu nit jigéen nag bu dee mooy papa mooy nijaay nijaay yi démissionné nijaay yi daal bala ñoo feeñ ñi nga bokkal bàyyi miiras jot ku nekk xoddami ko ah li arijaalu qawaamuuna ala nisaa góor ñi ñoo ñoo gën a kàttan ñu ne lan li rija lan lañ koy waxeeti sax ca xadis ba ca aaya ba mooy ne li zakarin mislu hazin ni koo wax rek loolu daal lañu gën a jàng si si téere bi mooy jigéen na am benn góor am ñaar foofu de góor day feeñ waaye bu dara desulee bu dul lool nag li taxoon yàlla jox la ko mooy ne pour que ëllëg sa jigéen boobu wala sa soxna soos wala sa yaay jooju wala sa doom bu jigéen boobu fu mu toll yow góor gi yaa ko war a jël yaa ko war a jël en charge même sa jabar bu amoon milliard yow yaa ko war a dundal yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo yaa ko war a faj yaa ko war a jox mu sañse yaa ko war a jox lu ko neex kon mbokki jullit yi loolu la l'islam santaane l'islam nag doone da ngay jël genn wàll bàyyi genn wàll déedéet l'islam da ngay jël yépp ba pare nga jàngal leen seen diine qu anfusakum wa ahlikum naaran la yàlla wax aar leen seen bopp ak seen njaboot yi ci safara ñu jël ñun suñu bopp bëgg ko aar yow doom boo xam ne ba nga ba nga ko juree xamoo sax fu mu mu nekk léegi am na xale yoo xam ne seen papa yi xamuñu fu ñu nekk am na sax nag loolu si jigéen ñi am na jigéen ñoo xam ne itam macha allahu taala ñu baal ma mais ñoom tamit dañuy jur sànni jur gas suul jur wàcc gas gas gas am na am na loo xam ne boo ko reyul nii si si si jëmm itam ray nga ko ci maanaa jël ko jox ko sa benn dëkkandoo wala nga jël ko yóbbu ko kenn may ko ko wala nga jël ko sànni ko doo xam ci lu mu nekk xamoo mu ngi lekk xamoo mu ngi naan ay eh waaye xale ni mu yërëmtaloo xale ni mu fragile xale ni mu neexee ci kër xoolal nga xool sa doom mu daw songu la xale ni mu yërëmtaloo xëcc sa ween di la raay di la foon xoolal loolu cadeau boobu la yàlla jox nga xam ne am na ay nit ñoo xam ne macha allahu taala am nañu ay at di dugg fu nekk di faju mënuñu am sax biir bu yàqu ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na man maay may ku ma neex ku ma neex ma may la góor ku ma neex ma may la jigéen ku ma neex ma xañ la ku ma neex ma may la góor ak jigéen yahabu li man ya yasaaw inaasan aaya boobu su ko defee loolu yëpp yàlla yow xañ ñoo ñu may la loolu mu la may dara ëpp ko ci àdduna kàddu boobu la noom la te kat ngeen xam ci lenn yàlla borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne mu wax ne képp ku yar benn doom bu jigéen pattaloo ko làggaloo ko foowaloo woo ko sànniwoo ko si àll bi ba mu màgg macha allahu taala ba mat dugg néegu sëy ñu maye ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow warul da warlul nan la àjjana kon kay àjjana bunti àjjana yaa ngi nii ubbeeku nañu kon war nañoo góor góorlu bu baax a baax a baax ci li nga xamee ne mooy li nga xam ne moom moo ñu war ci suñu njaboot gu jigéen gi ak njaboot gu góor gi yonent bi nee na nañ leen nañ leen di aar nañ leen di jàngal diine nañ leen di teqaloo tëraay xataa tëraay góor ak jigéen yi suñu màggee nañ leen jàngal alquran nañ leen jàngal nañ leen bàyyi ñuy fo xale day fo xale dafa war jàng war kon nañ leen dugal si euh, auto école yi nañ leen yóbbu ñu jàng diine nañ leen yóbbu ñu jàng mbooleem xam-xam yépp parce que xam-xam du du du diine kese mun nga jàng diine mais tamit bi yonent bi doon wax ne utlubul ilma walaw bi siin naan ilmu kullu shay'in afdalu min jahlihi xam lu nekk moo gën réere ko loolu du woon jàng alquran kese dégg naa keroog benn mbokk di wax naan waaw jàngum alquran mi doyul pour pour pour ni ah kay nit ñaa ngi siy tedd amul chômage ci jàngum alquran ndaxte bu ñuy bu ñu boo loo loo loo loo loo jàng feneen mën nga cee chômer ba mu des alquranul karim amul somage ndaxte boo bo bo boo amulee lenn mën ngaa jël sa benn taatu garab boo maandoo te yiw te sell te set lal ko teg say basang commencé jël sa benn tableau teg bind ci baa bi bu taatiitu saa siisu ñaari nit ñett dinañ la romb indi seen doom donte ne sax fay ba du demee noonu waaye bu weer deewee dinga am loo mën a jënde sa benn sàkku ceeb ak sa benn euh, diwlin jox sa soxna ak njaboot gi boo sellalee laa wax di nga ci amit tuyaa ba jàngale te jàngale xam nga ni ah fii Sénégal de moom jàngale moom gënu fi moom jàngalekat gënu fi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu loolu nag kenn mënu koo dindi nee na ki gën si yéen mooy ki jàng alqur'an ba pare di ko jàngale kon métier ngi noonu kuy tudd doom dina la woo ndax Sénégal moom téere bi dañ koy xooyal di ko naan waaye message bi jànguñu ko kuy tudd doom dina la woo nga tuddal ko sa doom nga bind loola toqantal dinañ la bindaloo téere watal dinañ la wax feralal ma sama doom su nit ki génnee àdduna itam dinañ wax ne kaay sangal ñu ko ndax ñemewu ñoo sang néew xam ngeen ne fii ubbi nañu nu ñuy sangee néew nu ñu koy jàngalee waaye ñu inscrire woon daanaka genn wàll ga yëpp ñëwul ma ciy jaar de passage di nuyu kaaw ak Binte jàll moom jàng si woon na mokkal na ko te loolu ku nekk da koy soxla loolu doo ko am jullee itam nit Sénégal daal diine ji daal liñ ci gën a fonk à part folklore bi mooy euh, ku judd dinañ la defal yëfi diine dinañ nodd si ndeyjoor li xam si càmmoñ dinañ la jox euh, euh, nu mu tuddati toqantal jàng ko te loolu jigéen bi moo ko war a mokkal tufli ko si weenam bala mu ko jox doomam ah loolu jigéen bu ëmb war na ko mën ana ban li gën a yéeme ci ci ñàkk jàng boobu itam parce que itam xale yi dañ leen war a aar xale du question di ko tëj di ko yóbbu école di ko kii mais am na ay baat yoo xam ne danga ko war a jàng di musulu sa njaboot xoolal ndey joo xam ne faatiha mokkaloo ko ak ñeme dëgër fi mokkaloo qul huwallahu ahad mokkaloo falaqi ak naas yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon aare njabootam moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon wax Fatima subhanallah Fatima sama turandoo bint Zahra ne ko guddi gi booy tëdd nanga jël sa ndeyjoor bi nga nga nga teg ci sa lex nga wax baat yii baat yooyu su ngeen ko bëggee xam dangeen dangeen di dem ci ustaas yi ak ci imam yi ak jàngalekatu alquran yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar xoolal ma lii ndax lii jafe na xam ngeen ne jafewul ah nga mokkal ko nga tër tari ayatul kursi tufli ko sa njaboot bu ñuy xëy di génn nga wax leen kuy génn ci kër ban ñaan lay def ñooñu dinañ mucc ba dellu siwaat ci kër gi saay-saay bu jógee sax du dal si ñoom kon xale yi tamit nañ leen di léemu guddi waaye nañ leen di léemu bëccëg te ñu surveiller leen ndax yonent bi nee na kullukum in ku nekk sàmm nga sàmm nag mooy bul defee ne yow am na ñoo xam ne defe nañ ne njaboot gi dundal kese la non non non lekk mu naan loolu mu ngi mel ni nga yar sa xar bali bali wala sa sa sa sa say poulet euh, macha allahu taala dem fee ca sédément ca ñoom ndeel la ngom jënd fa say ginaar di leen xontu loolu kese doyul doom dañ koy jàngal nan la jàngal ko diine yar ko éducation religieuse loo ko jàngal jàngal école française wala nga jàngal ko anglais na diine bu dee diine bu mu mënti doon ndax suñu mbokku chrétien yi émission bi dañ koy déglu ñu ngi leen ci ziar ñoom tamit bu baax ñu yar leen ci seen diine ñun ñi nga xam ne ay jullit lañu ñu fexe waaye nag li arab yi di wax rek ne faaqidu shay'i laa yu'tihi nit ki li mu amul munu koo joxe te nit ki li mu amul mooy yaay ju mokkalul fatiha allahu akbar papa joo xam ne mokkalul fatiha kooku nu muy yare doomam ci lislaam loolu war nañ ci bàyyi xel te ñu bàyyi li nga xam ne moom dañu defe ne mooy àdduna mooy wutum koom-koom mbokki jullit yi billaahi lazi laa ilaaha illaa ku defe ne xaalis kese mooy àdduna te loolu lañu xewal borom xaalis bi mooy boroom juddu bu rëy bi boroom xaalis bi mooy ku baax ki boroom xaalis bi mooy kii yiw moom la ñëpp di seet wutin wi dagana la tuñu ko noo noo mun a amee rek baax na waaw soxna si waaw temps bi jeex na dafa mel ni euh, mu ngoog eh, benn minute la nag mais bul fàtte ne da ngeen a jëloon sama 45 minutes 15 minutes la comme nag mënuma ci lu bëri itam xam naa mbokki téléspectateurs yi ngeen xam ne noonu la li ñu waroon a waxtaane bëri na waaye ñuy nuyu mbokk yi rek di leen ziar di leen fàttali ne Euh, macha allahu taala na Renofis ñi nga xam ne ñooy euh, yore aji màkk bi ci privé bi woote nañu suba ca grande mosquée à 9 képp koo xam ne bëgg ngaa dem màkk wala nga yore agence de voyage wala nga yore groupe boo yóbboo màkk na nga fa teew demee à 9 ñu càmbar nan la ñuy waajale màkk bi ndax Sénégal ñoom aj ñor na leen. te ku bëgg a bànneexal sa waajur ñu bëri mooy damay dund ba yóbbu sama yaay màkk ngay wax wala yóbbu sama papa wala yóbbu sama soxna service yi tamit ñuy xam ne ñi nga xam ne ñu ngi organiser conférence yi di tiire billet yi ñu bàyyi xel ci loolu may leen di yëgal itam rek ziar euh, Madina Gunaas bi di leen wax ne képp ñi nekk ci yoon bi di waaj ñu ngi leen di ziar di ziar Ceerno Abdou Aziz Ba macha allahu taala di leen wax yàlla nañu eggalee sago di ziar itam Cerno Tijaan suñu sëriñ boobu mi den juróom mi den salminamo mi den duwanooma kam ko ne yo allah nu balde makko waaye nag suñu maam ilimaan Boubacar Kan ziar boobu nga xam ne dimat lay am 28 29 30 incha allahu taala télé bi dina si jël liggéey bu bëree bëree bëree bëri fas yéene nañ koo jàllale ay direct macha allahu taala di ci woo njaboot gi yëpp soxna Abu Kan Karaas Kan ñu ngi yëgle ziar boobu di ziaru Iliman Boubacar Kan di wax ne njaboot gi yëpp macha allahu taala bu ci kenn tarde ñu waajal ko le 28 29 ci mois de mars bi fële ca Dimat di ci ña euh, di ci ziare soxna Safiatou Tall ak borom këram Thierno Ousmane ak euh, Marem Assa ak ñoom Kaaw ñun ñëpp ñoo ciy taxaw man dinaa fa def conférence bu mag a mag Oustaz Abdou Karim yow invité naa la yaay sama invité d'honneur ci ziyaaru Ilimaan Boubacar Kane boobu xam naa képp ku sant kan rek ñu ngi la fay xaar di nuyu ñëpp nag di nuyu Dame jóob euh, bu barñe Oustaz Abdou Karim yéen a dëkk keroog dama fa def conférence mu may ma ñaari terrain ne ma danga nga koy def daara daam jóob yàlla na la yàlla fay te ñoom Karjata Xadijatu jóob ñoom ñoo doon def conférence ci 8 mars bi ak ñoom ab sa xuma invité ma ci mu def ci taranga boobu ak taranga yu mag yooyu ñu ngi koy ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gi yaram di ñaanal nag waa Ngara mënuma leen a fay dama leen a bàyyeeg yàlla Adja Sala Diop bàyyi leen a nag yàlla bàyyi naa leen ak borom mbaar mi taraanga yi bëri na rëy na seen conférence riis na incha allahu taala dinañ ko jéem a jàllale ci télé bi dañoo jootagul image yi moo tax waaye ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu oustaz Abdou Karim xam naa ne rek comme man xam naa ne nga ñaanal ma man daal damaa géntoon di def émission une de temps waaye fan yi yëpp gént gi daal bi ma géntee di def émission une de temps ma ñëw def ko 15 minutes miyaa nag tey moom ma doon réaliser maa ngi koy nuyu di nuyu na Xadijatu mi nga xam ne moo ma yéen yi macha allahu taala waaye nag di nuyu soxna Umu Xayri si dabbaax mi nga xam ne moo jaar ak ensemble bu jekk bi nga xam ne moom laa yóbbu woon Madina Gunaas soxna Umu Xayri si daa baax maa ngi lay nuyu ak soxna Yaasin di nuyu njaboot gi yëpp sama yaay boomel ba sama papa lumbul si wu ma kenn xam naa daal soxna Zeynabu Seck Jaawara waa xiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu